dañoo choisir Touba département de Mbacké parce que tout simplement ñaari at a ñu ngi koy organiser di toog Dakar crise bi mu ñëwee daf ñoo yee xamal ñu ni ñi ci gën a am ay jafe-jafe mooy ñi nga xam ne amuñu éducation financière te dañoo nekk ci économie te dañoo active daanaka dañuy yëngu bu baax ci économie ñu gis ni Touba banque yëpp a ngi fi. institution de microfinance yëpp daanaka mu ngi fi population bi dafa jàmbaare doon liggéeykat bëri ay ndongo daara yoo xam ne jànguñu mbirum finance ñuy am ay tolof tolof ak ay jafe-jafe yu bëri ci seen jànku jokkalante ak banque yi loolu nag indi ñu ñun ñu ne édition bi Touba lañ koy defee Mbàkke lañ koy defee ndax waxtaan ak population bi xamal leen seen ak ak yelleef yee leen ci dencuwaay xaalis fan la ñu war a denc seen xaalis ak naka lañ koy dencee ak buñ ko dencee tamit lan moo leen ciy fekk ëllëg bu jafe-jafe amee. di leen xamal ni xaalis mën nañ ko denc banque xaalis mën nañ ko denc ci mutuelle xaalis mën nañ ko denc ci assurance xaalis mën nañ ko denc ci fonds de pension retraite xaalis mën nañ ko denc ci mutuelle de santé pour ko boo feebaree nga dajale boo feebaree ñu faj la xaalis mën nañ ko sax dem. dugal ci kutontin wala yóbbu ko ci euh, placé ko ci marché financier bi waaye xaalis boo ko dencee la la cay fekk mooy banque centrale dafa am réglementation boo xam ne dafa wax ni boo dencee xaalis bu at bi jeex laaloo ci dañ ci war a comp jox la lu mel ni téeméer bu nekk ñu jël ci ñett ak yoon wàlla compal la tegal la ci muy sa bénéfice loolu la banque centrale wax ñu bëri xamuñu ko ñu leen di xamal seen ak ak yële bu ko defee bu àddee te fekk ne denc nañ fa xaalis bi buñ leen ko joxul ñu réclamer ko donc loolu éducation financière la boo xam ne dañ koo ameel population bi mel ni Touba Mbacké nga xam ne day contribuer activement ci économie réew mi te économie moo yor développement wu réew. waaw jafe-jafe yi jafe-jafe yi bëri na xaalis booy denc sa kër amalu la njëriñ wóorul amalu la njëriñ état. amalul jëriñ sa askan amalul njëriñ banque ba nga koy def banque yi fi ne bërëb liggéeykaay yi entreprise yi parce que tey xaalis booy denc sa kër ñu koy wax yi thésaurisation wóorul ba pare da nga koy gaspiller boo moytul wala ganax yi jaar fa wala boo mm, euh, lakk-lakk am wala sinistre am nga ñàkk sa xaalis xaalis bi nañ ko jël métti na dugal ko ci banque yi mais ñu ànd ñu ñëpp xeex suñuy àq ak yelle pour que ñu am ay banque yoo xam ne non seulement banque nationale la wala mutuelle nationale la mais ay mutuelle yoo xam ne dañoo am kanamu nit daanaka visage humain yoo xam ne am nañ sentiment ci nit ñi te dañuy doxale loolu nag xeex la parce que tey xaalis boobu boo ko dugalee foofu sa état ba nga nekk dana ci am taxe yoo xam ne ca lay def robinet mbedd yeeg fa lay def école yeeg fa lay def hôpitaux yeeg yooyu boo ko fa defee yow dana la mën a amal njëriñ parce que boo boo demee ba soxla mën nga jël boo ko fa defee am na sécurité boo ko fa defee Masamba ak Mademba yi nga xam ne dañoo bëgg liggéey kii jaaykatu gerte caaf la kii euh, kii kii marchand ambulant la kii taabalam la yor ñooñu mën nañ leen ci lebal ñu liggéey fay. donc xaalis bu ñuy denc ci kër amalul njëriñ askanam amalul njëriñ ki ko fa defal amalul njëriñ état mais xaalis boo yóbbu ci mutuelle wala ci banque wala ci assurance dana la amal njëriñ amal njëriñ sa askan amal njëriñ état amal njëriñ say entreprise u dëpp kuy développé yëpp ñu ngi jëfle ñu ngi jëf lante ak finance islamique saytu bi wane ne finance islamique moo gën a mën a développé réew moo gën a mën a développé entreprise parce que amul riba du financé du financé activité yu bon ba pare financement bi bu ñu la ko joxee boo pertee waa ji la ko jox perte boo gañee waa ji la jox gañee da ngeen di partager risques yi donc ku mel noonu bu la koy jox da la jox ci anam yoo xam ne da réussir mais finance classique bi da ngay gis dañ la koy jox ci benn taux d'intérêt boo xam ne yow loo liggéey doo am dara da mujj di fay banque ba bu yàggee dootoo liggéeyati parce que amoo ci dara ñu ne fayul nanguwul fay jox nañ ko suñu xaalis mu yàqu ko ñu ñëw sa kër di la coow di la di la di la humilier jébbaane ak yooyu ñu ne nag il faut que Sénégal bi nga xam ne 95 pour cent yi sax ma sax mën naa am sax 99 pour cent yëpp ay jullit lañu amana chrétien amana musulman ñu fexe ba banque bu ne mutuelle bu ne mu am guichet islamique boo xam ne ku ñëw duñ laf fa nga def guichet classique bi bu la neexee dem def sa xaalis si islam fu ma ne nga wax fu nga ko jëmale ñu jëmale ko foofu bu ko defee lu mu liggéey ngeen am bénéfice boo xam ne da ngeen di xam ni ngeen koy partagé ca njëlbeen te bu daanoo tamit ngeen xam na ngeen di seddoo yi perte yi ca njëlbeen loolooy finance morale finance éthique boo xam ne moom fi mu nekk nii mooy jamale askan bi Euh, kanam te du jël riba li ñu wax mooy il faut que dëkk bi ñu tëgg benn loi bu ñu wax euh, ay loi yoo xam ne day protéger usager bi diggante client bi ak banque ba tolloo ñu doole banque ba am na xaalis am na avocat am na technicien yëpp client bi amul loolu yëpp ñëwul lépp mu teg ko ay dëgg sërëxal signé ko li mu war te signé xamalu ko dara bañ dem ba ci biir jafe-jafe am mu bëgg a nangu ay biens ñu ne loolu nag il faut que ay loi yoo xam ne day protéger client bi ñu tëgg ko loi yi nag bëri na loi sur le délai de grâce loi sur le délai de rétractation loi sur euh, la mise en place d'un fonds destiné à payer les frais de procès daanaka fonds boo xam ne dañ koy teg pour que client bu am problème ak banque ñu tibb ci jox ko avocat parce que tamit ngeen dem fu ba xam ne doonee benn moom mu ñëw teg avocat am yow amoo avocat te yaa am dëgg avocat bi wax wax indi texte yi indi article yow amoo benn article boo xam waaye sa dëgg rek nga yor ñu jox ñu jox ñu jël dogg bi jox ko jox ko banque ba loolu il faut que mu dañ il faut que état jël ay responsabilités comme client bi bu demee banque day fay benn taxe bi ñuy wax taxe sur les opérations bancaires ñu comp def benn fonds ne ko mi nga xam ne yaay produire taxe bii bis boo amee jafe-jafe ak banque banque day indi avocat am ñun danañ la jox avocat boo xam ne da ngeen dem fu bu doone ba xare doone benn bu ko avocat am waxee yow nga parce que état dafa war a protéger tamit ay usagers mais loolu yëpp amul donc loi yi mu ngi fi. yoo xam ne dañuy gën a protéger client bi loolu bu amee avocat euh, banquier bu ko wóoree ni client bii ma jàkkaarloo bis bu ñu amee jafe-jafe état dina ko jox avocat wala fond bi dana ko jox avocat dootu la tegati ay dëgg sërëx yoo xam ne ëllëg dana suuxal banque bi parce que dañ koy dàq boobaa jërëjëf